dana taxaw bu taxawul yónni ndaw motax sama taxawaay fi président dafa leen ngeen xam ne ku xam na ne que jàppal ngeen ko am na ci élection passée yi lu benn président musul am réélire deuxième mandat au premier tour lu ëpp

tant président des premier gestes, nous lii dit naa partager les, les papiers. vous que les citoyens, des citoyens, citoyens parce que si nous rek ku le de a des wala nous duggal la ci lo ne duggal ci budul président def ma né ma laaj permettre ma que sama discours ba ma wax français parce que jox message bi ko sama discours en en français. Dès que vous informez des information. Oui, projet est en cours. Président Macky Sall, qui est en cours, nous le vu, puis matin, vu du foot, nous offre 110 milliards de francs CFA.

qui tali rek Nous presque 93 milliards. monsieur ministre. gis nous avons projet nous avons Matam à travers à travers projet est fallait yi par la terre.

xam ngeen ni yenn ci seen dëkk xam ngeen ni du ngeen mës a am président bu leen bëgg nu ab nu Macky wax nu leen Macky wax bëggee xam ngeen ko te loolu nag nit nit day fayda bu la yàlla mayee dara da ngay remercier yàlla mais da ci jàpp tam da nga ci jàpp def ci loo mën def pour dimbal kooku nga xam ne mu ngi jóg jóg di liggéey di la